kon ñu leen di nuyu bu baax ci ànd beeg ñun ci Sénégo TV comme ni ñu ko baaxoo defee ak Bathie Show ah, ñu jëloon nag benn pause bu ndaw ak Bamba Day bi ñu jógee di remercier bu baax équipe yi ñu jàppale woon lépp mais tey nag seen émission spéciale Bathie Show ñu dalal Ousmane Tounkara nekk activiste fii. Euh, ci Amérique te léegi moom la fa fas yéene dal fas yéene waxtaan ak moom euh, ci liggéeyam waawatina fi mu nekk Ousmane ma bàyyi la nga jël ñu seetaan. waaw euh, gars yi maa ngi leen di nuyu di ziar ku nekk ci turam ak santam. ngeen jéggal wolof yi nag comme saraxole la. te sama waa ji defe naa déggul saraxole donc xam naa interview bi ci wolof rek la mën a nekkee. donc vraiment maa ngi nuyu ñëpp. Mhm. ku nekk ci turam ak santam man nag Ousmane Tounkara laa tudd te maa ngi basé wu fii ci Amérique. Mhm. mu nekk lu amam solo mais tey bu ñu la wax kuy mooy Ousmane si Tounkara tey lan nga ñuy wax. Ousmane Tounkara. Ousmane Tounkara waaw donc Ousmane euh, Tounkara. <laughs> Ousmane Tounkara en réalité li ma koy bëgg a waxee nit ñi toujours bu ma ko waxee sama xaritu américain yi toujours dañ may ree. Mhm. ma ne leen ama faama maanaam doomu baykat la. boo xam ne maa ngi bàyyeekoo ci dëkk bu tudd Jidda. Jidda dëkk la boo xam ne fukki kër ak benn la. Mhm. foofu ci Sénégal. Euh, mi ngi ci département wu Vélingara. Mhm. mais nag comme niñ koy defee lu bari man Dakar nag laa juddoo. Mhm. Dantec laa juddoo. Mhm. donc euh, ma bàyyeeku foofu nag euh, presque une trentaine d'années ci ginnaaw. Mhm. ñëw Amérique comme ni ko nit ñi ñëpp di defee rek ñëw daan sa doole. mais niñ koy waxee comme toujours American Dream donc Amérique nag dafa nekk réew moo xam ne dafa jox ñëpp opportunité. donc euh, ba loolu tax donc ñu mën a nekk Amérique tey nekk ay entrepreneur sénégalais. yoo xam ne dañoo bokk ci réew mi suñuy kàddu tamit ñu ko fii déglu ñu bokk aussi ci ñi nga xam ne dañuy fay ay impôts. Hmm. donc euh, kooku mooy Ousmane Tounkara donc. Euh, hmm. xaw ndax am na euh, am na am na solo présentation bi mais Ousmane Tounkara fi ñu ko xamee. Hmm. mooy daanaka nit koo xamante ni activiste la. xeex nangam nanga dugal lan moo la dugal ci ci ci ci ci ci ci loolu. voilà bref. question bu excellent uh-huh. parce que toujours damay ne doomu aadama yi dafa am nit ku nekk rek ak li nga xam ne moo ko dugal ci li nga xam ne moom lay yëngu uh-huh. euh, donc xëy na ñu bari bàyyi ñu xel mais ñaari at ci ginnaaw laa defoon sama première sortie uh-huh. euh, première sortie boobu li ko waraloon <coughs> yàgg nañoo yëngu ci maanaam ci dëkkuwaay yi ci maanaam ci tooguwaay sénégalaise mais daanuñu génn ci ay vidéo Facebook wala YouTube wala télé wala quoi que ce soit. Mhm. mais daan nañu def maanaam lépp loo xam ne man nañ ko ci dimbali suñu réew. Mhm. ci beneen côté. Mhm. mais bii yoon li in li waral xeex ba ñu génn tey xam li nga xam ne moom moo xew Sénégal ba ñu taxaw ko. dafa am benn jeune bu nekkoon fii New York comme ni ma koy waxee toujours. mu jóge fii. Euh, dem Nouvelle-Orléans ñu koy ne assan Diouf. Mhm. donc assan Diouf moomu daan dénoncé li nga xam ne moom moo ko naqari ci Sénégal. Mhm. fii ci Amérique. Mhm. parce que lii balaa ñuy dem Sénégal laay wax ni donc man daanu ma seetaan lu bari waaye daan naa def rek bu ma zappee ci YouTube bi. yenn saa yi ma tombé ci moom. comme ni ñu koy waxee ci temps yonent bi rek nga jéggal ma amoon na benn euh, soxna bu daan def ay njéyee euh, te yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam benn jour bi mu ko gisul mu laajte ko donc benn jour ñëw rek ma jot message. Mhm. ne wala Assane Diouf de ma dégg comme ni ma ko daan déggee muy wax. Mhm. ma dégg ci YouTube bi Assane Diouf dañ koo jàpp. Mhm. gars nee nañu terroriste la loolu rek laa ci dégg. donc ma topp nag mbir mi. bi ma toppee mbir mi topp mbir mi topp mbir mi dem gis ci maanaam ay injustice yu bari yoo xam ne daal. ñu yaakaar ne en tant que doomu sénégalais ñun ñëpp war nañ cee mën a bay suñu waar. kon donc loolu moom yow moo la ci dugal. loolu moo ma ci dugal. loo commencé xeex ngir lan. ngir injustice. parce que pour man. Euh, boo nekkee ci réew. tey nga nekk ci réew mu mel ni Amérique. Mhm. xam nga nuñ ko fii defee. Mhm. ñu la newoon Ablaye saar jàpp nañ ko. Mhm. Sénégalais yëpp ñooy joxante loxo parce que ay immigré lañu. Mhm. ñu dimbalante xool Ablaye saar nuñ koy génnee ci jafe-jafe. dëgg la donc bi yoon comme Assane Diouf la. donc Sénégalais yëpp di laaj comme toujours comme niñ koy defalee lay Sarr. ñuy laaj ku ne ku nekk loo man ku nekk loo mën a dimbalee diw ñu xool. mais man ma dem au ma dem en ci kaw loolu. mooy lan ma jéem a saytu. mais exactement lu mel nii lu mu mën a xew. parce que Sénégal du réew terroriste. léegi kañ la Amérique daan jékki-jékki rek di accuser ay doomu sénégalais ay terroristes. Mhm. loolu c'est grave. léeg-léeg loolu nga gëstu ko. loolu ma gëstu ko ma gis ci ay ñaawteef. Mhm. yoo xam ne vraiment. Mhm. ma xalaat ne en tant que sénégalais. lii baaxul ci ñun parce que en réalité tey. li ma comme ni ma la koy waxee nii boo demee tey ci listu dëkk yi nga xam ne dafa am terroriste. Donald Trump bi mu ñëwee nii. dëkk yooyu la ne dañ leen génne ci réew mi. daf leen band sax ci réewam bi. donc yu mel noonu. réew mi graaw na fi am na fi gravité boo xam ne boo ko déggee te yow ngay doomu sénégalais. Mm. te loolu mën a tegu sa kaw wala mu tegu sa kaw xarit wala sa am di jàmm. Mm. donc ñu ñu dénoncé ko. pour non seulement woon waa Sénégal ne loolu du réalité. Mm. mais woon aussi américains yi ne loolu ñu ñu accuser suñu doom. du réalité xaw ma nag leneen. xam nga comme ni nga ko waxee. Euh, doomu aadama bu ne am na lenn loo ko mën a rapproché xëy na lu la neexul ci moom. Mm-hmm. mais côté boobu moom ñun bi ñu ko gisee vraiment mu doon loo xam ne dañ koo naqarlu. Mm-hmm. donc loolu waral ma ñëw nag ñu dugg ci xeex bi ak suñu doole ak suñu man-man ak suñu kattan. Mm-hmm. ñu ne di nañ ko xeex ba fu mu yem. am na solo am na solo am na solo euh, loolu nag euh, day tax nañ daay dugg nag ci wàllu waxtaan yi ndax tax dañ koy tàmbali ak actualité. gis nañ ne vraiment ñu fal nag président boo xamante ni def na sept sept ans vraiment lépp di dox. na macha allah ah muy def liggéey bu amam solo sénégalais yi du ko rafetlu mu def sept ans ba de ren nag euh, ci février bi sénégalais yi daal di renouveler seen moom ci seen confiance daal di koy falaat mu nekk président gis nañ leen sa yéen ak léegi yéen a ngi xëy di ñaxtu di joytu mais pourquoi pas mun leen ànd ci majorité sénégalais yi li ñu d'accord ne léegi amaat nañ président boo xamante ni dañ koo fal ci suffrage universel. xam nga euh, loolu moo tax ma ne neex na ci réew. Hmm. Euh, tey am na ñu ko gisee noonu. Mm. mais comme ni nga ko waxee am na ci ñoo xam ne tamit man sama genre gi gisewuñu ko noonu. lu tax gisewu leen ko noonu. par exemple man Amérique laa dëkk. Mm. te fii la démocratie fekkee baax maanaam fii la démocratie juddoo. Mm-hmm. dëkk bi mooy baayu démocratie mooy fii nga xam ne moom mooy yaayu démocratie ak papaam. Mm-hmm. donc ni démocratie bi demee fii. Mm-hmm. ñun ci sama ñaxtu man. Mm. bu ma gisee mu demee woon noonu Sénégal. kenn dootuma ci dégg mais man dama ci am problème benn problème. dafa ñun Sénégal kon amuñu amuñu amuñu démocratie. pour man pour man. Mm. am nañu démocratie. Mm-hmm. par rapport ak dëkku Afrique yu bari. Mm-hmm. mais li ci manqué moo ëpp li nga xam ne. am na ci. Mm-hmm. mooy am na ay jubbanti yi ñu ci war a mën a def. comme par exemple tey boo ma joxee boo ma ko permettre. Mm. ay élection yu jàll. comme ni mu daan def avant man yaakaar naa ne bu élection jàllee ñu xam la ci nekk yëpp. est-ce que yaakaaroo ne war nañoo mën a joxe résultat yi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a joxe ca bañ ko waree joxe te fekk benn kàddu du ci génn mais tey par exemple man problème bi ma ci am élection am na ñi war a joxe ay résultats joxeeguñu ay résultats euh, quelque news outlet bu français génn na wax ay résultats premier ministre sénégalais génn na wax résultat beneen nit. juge ñëw une semaine après jox ñu ay résultats yoo xam ne presque dafa méngoo ak li premier ministre bi wax. yooyu man daal ci élection yi ma jot a fekkee boog Amérique démocratie bi wul noonu. mais dañu am ay ay ay ay mbootaay yoo xamante dañoo ñëw assister suñu élection yi mhm. te bi ñu jeexee ñoom tamit mhm. euh, wax nañ ne carrément ne président de la république son excellence monsieur Macky moom moo gagné élection yi yéen la moo tax loolu mën nañ ci ànd aussi tamit xam nga man dama am problème comme ni ma la wax rek mm. xam nga nit ku nekk. Mm-hmm. ak li nga xam ne moom nga gëm ak ni nga ko gëmee. Mm-hmm. xam nga tey comme yow tey par exemple mbootaay bi ngay liggéeyal nii. Mm-hmm. man ñooñu laa daan déglu. man Sénégal rek laa daan déglu. Sénégal rek laa daan topp. ah moo fi moo fi bu bi parce que li tax may. déglu Sénégal. gis dama fa gis transparence totale. xaw ku ko moom mais dama lay jox exemple ñoom daan nañu génnee ñun suñu ay wax. Mhm. daan nañu def ay ay sortie ñuy ñuy wane li nga xam ne dañ koy wax. Mhm. mais tey par exemple yow comme mbootaay yooyu ngay wax. Mhm. quatre-vingt-dix pour cent tey man mbootaayu Sénégal ni ma ko gisee. ki ko moom soit mi ngi ci politique bi wala mi ngi ànd ak ka nga xam ne moom moo yor réew mi. tey par exemple ma jox la benn exemple bu ndaw. mbootaay yi fi nekkoon avant da nga daan gis ñuy critiquer ay doomu aadama. mais man ci sama jàngat. doomu aadama yooyu bi ñu bëggee kenn critiqué tu leen. dañu dem rek jënd mbootaay kenn waxatul ci ñoom. waaw. xam nga mooy boo boo ma ko permettre du joxew ma exemple. Mhm. mais boo ma ko permettre dinaa joxe exemple. Mm-hmm. Mm-hmm. continuer rek. <laughs> voilà donc loolu. yu mel noonu moo tax. comme niñ ko waxee am na mbootaay yoo xam ne bu ñu génnee xibaar. Mm-hmm. pour ñun dañ koy jàppee rek beneen xibaar. duñ ko jàppee xibaar boo xam ne dinañ ko d'accord dinañ ko d'accord dinañ ko déglu nag. dinañu ne beneen xibaar. mais duñ ko jël d' accord ci. bu ci mel noonu benn exemple. TFM par exemple ñun xale yëpp ñoo ànd ne TFM benn problème rek bi ñu ci am. benn problème peut-être man. Mhm. tuddee ma ko man. Mhm. mooy. ñun daan nañu seetaan ñun yàgg nañ fi moi je suis né en mhm. donc 2000 fii ñu fekk 99 fii la ñu fekk. you know fii la ñu fekk. Mhm. Mhm. journalu euh, Sénégal yi que ñu daan bindal lu gën bari Youssou Ndour la waxuma lu bon wala lu baax mais bind rek bind daal. mais ñu bari ne Youssou Ndour moo amul jotul nekk nekk ci presse di bind moom mi ngi liggéey. ba ah, xam waxuma liggéey mm-hmm. waxuma moom léegi waxuma moom moo bind moom mm-hmm. bindul. Mm-hmm. moom Youssou Ndour mënta bind. moom bindul dara. bindalul kenn lu lu baax. mais dama la ne moom la ñu daan bindal avant. moom la journaliste yi daan ne voilà Youssou Ndour tey lii. Mhm. Youssou Ndour tey mi ngi ne sol na mbaxane bu xonq. Mhm. Youssou nduur tey sol na ay dàll yu la mhm. mais bi Youssou Ndour jëndee TFM ak léegi nee ma ban journal nga déggati ñu wax ci moom. mais teewul nag am groupe Futurs Médias am na ay journalistes yu crédibles yoo xam ne toujours te muy dëgg. te kër gi la kon donc yoo loolu boo ko waxee. te muy dëgg Pape Djibi. le le jeune Pape Djibi laa. Pape bi am na benn journal dama koy seetaan toujours. je le regarde toujours. Mhm. ku mel ni yow tey. Mhm. xaw ma ban ban groupe nga bokk. Mhm. mais xam naa ne que. xam naa la ci jàngum journaliste te xam naa la di ci liggéey xam naa ni saytu. mais tey par exemple ñun am na ay nit yoo xam ne xam nañ leen TFM ñu nag ñoom ñoo doon ànd. ñooñu amuñu amuñu xarañte journaliste. mais ñu ngi fa dëgg ñu ngi bëgg a nekk Sénégal bëgg a nekk ay journaliste. xam nga nit ku nekk. mën nga koo jox place am xam nga tey dama lay jox euh, euh, euh, benn exemple bu ndaw. mi ngi mel ni tey bàcc mhm. nga lal euh, euh, euh, nga ubbi benn société mhm. nga ne société bi dama bëgg jël comptable mhm. dama bëgg a jël maanaam ki nga xam ne moom mooy doon superviseur moom mooy kii xool lépp li ñuy def ci société bi dama bëgg a tey jël koo xam ne tey moom mooy doon classeur moom mooy classé bagage yi léegi nga pour comptable nga dem jël nit koo xam ne mosul jàng comptabilité xamul luy comptabilité. Mhm. nga jël ko nga teg ko ci bopp société. société boobu loo am ay kayit yu jaar yoon. Mhm. mënuloo am ay firnde xam nga société yu bari li ñu sonal ñun ci Sénégal. fii mhm. société sénégalais yu bari li ñu sonal. parce que dañuy jéem a daja dañuy jéem a économiser. ba mujj gi ñu dem spend more than what we need to spend. tout simplement bañ nañu fay bàcc mu def liggéeyu xam donc loolu moo tax ma lay ne. boo gisee ñun résultat yëpp nanguwuñu ko ni mu waree. dafa am ñoo xam ne ñi ko génnee ci ñun. ils ne sont pas crédibles. Mm-hmm. donc loolu automatiquement day tey suñu xel. parce que tey aussi nga jël bàcc nañu waxante dëgg. bien vrai que Macky Sall c' est le président légal du Sénégal. loolu kenn mënu ci dara. kon yow su ma déggee en résumé li nga wax. dama bañ ba victoire boo xamante ni am na mais loolu nag. vraiment dafa nekk taw contesté wu ma victoire bi mënu ci dara. xam nga victoire. Hmm. tey dafa am victoire technique. Hmm. xam nga victoire ñaar la. Hmm. tey par exemple boo waree dem football match. waaw. ñaari équipe ñoo war a ñëw. Mhm. xam nga tey bu ñu ñëwee xool terrain bi. Mhm. arbitre yi terrain bi set na pour football. Mhm. benn équipe bi ne non non non ñun mënuñu football tant defaru leen pax bii. boo bañee football dañu lay forfait. mooy loolu victoire technique la. Macky Sall techniquement moom moo gagné élection Sénégal. techniquement technique. waaw parce que bi ñu compté lépp ba pare. ba ñu ñëw génnee résultat yi ñi nga xam ne ñoo waroon contester élection yi dañu bañ ñu ne ñoom duñ ko contester donc sa qui veut dire que mhm. donc c' est technique mais comme ni ma la wax victoire d' office bi nga xam ne moom la waroon am pour ku mel ni Ousmane Tounkara mhm. nga convaincre ko mooy soxlawoo juge Demba Kandji ñëw quatre jours après ay élection bi coow li ne gunnu gu naaral ci dëkk bi muy lox xamul sax ñi muy tudd lan la. Mhm. muy lox mi ngi xool gauche mi ngi xool droite. Mhm. mu pare rek ngeen wutal ko ay garde corps dem teg ko buntu kanam loolu yi amul sens. d' accord d' accord <laughs> fàttali leen ba léegi ne Ousmane Tounkara tey moom lañ dalal ah, ñuy waxtaanee ah, ba léegi actualité euh, au Sénégal waxtaanee tam euh, euh, gis nañ ne léegi chef d' opposition moom léegi ñëpp xam nañ ne la macha allah mais. laa jëm ci laa jëm parce que. Idrissa Seck moom mooy chef de position mais dañuy gis ne ba léegi. boobu ba léegi xëy na moom. moom duy def ay sorti nag di génn comme ni ko Ousmane Sonko euh, comme ni ko Ousmane. Euh, Sonko di di di defee sa turandoo. Euh, ba fan yi parce que gis nañu feer bi nga xamante ni jël nañu benn compagnie bu mag bu dëkk Turquie jox ko ko ki mu commencé nag suñu ressources minières yi nga xamante am nañ ko ñu koy commencé exploité et loolu nekk lu am am solo. yow loolu ba nga koy yëgee dégg ko donte Ousmane Tounkara Ousmane Sonko. <laughs> génn def ci benn synthèse ba loolu nag jul coow Sénégal. Mhm. yow lan moo ci sa jàngat. xam nga bàcc. Mhm. Euh, jërëjëf encore ci question bi. te question bi am na solo. Mhm. Euh, te toujours comme ni ma koy waxee doomu aadama yi rek mënuloo bëgg dëkk nga bañ avancement wu dëkk. Mhm. loolu il faut nit ñi comprendre loolu te wax ji dellu si waat rek ci comptabilité question kaaw comptabilité bi ma la wax. xam nga Sénégal dañ fa passé ay loi loi yi xam nga lu mu wax. mooy bépp ressource doomu sénégalais. boo xam ne dañ koo war jox. ay étranger wala ku mu mën a doon. Mhm. dañ ko war a waxtaane ak parti politique yi waxtaane ko ak société civile. Mhm. wax ñëpp li nga xam ne moom moo xew. ak lan moo ci intérêt Sénégal ak lan moo ci intérêt wu Sénégal. Mhm. voilà loolu bu amee. dina tax tey bu fekkee man pa pas benn nit. parce que boo nee société civile am nañu ay représentant boo nee parti politique yi parti politique bu ne am na représentant donc bu ñu toogee waxtaane ko ci seen biir. ñoom ñëpp dinañu trouver benn point d'entente te duñ ko politiser du doon maanaam mbiru politique day doon loo xam ne intérêt Sénégal moo ciy dox. Mhm. mais tey bu fekkee dañu waxtaanee loolu loi bi ne noonu lañ ko war a defee. léegi ñu ñëw nag ba loolu am ñu war koo defee noonu yow bàcc nga ne am soxlaatul ma ciy waxtaan ak kenn comme man maay kii nga xam ne man maa yor. mbir mi bàyyil rek man ma def ko ni nga xam ne noonu la baaxe pour sénégalais mhm. mais qu'est-ce qui qu'est-ce te yow lan moo war a tax nga yaakaar ne yow li nga yaakaar ne moo baax ñun ñëpp dinañ ko d'accord yow man ngaa yaakaar ne dara moo baax ci sénégalais mhm. man ma bañ a yaakaar loolu mhm. yow man ngaa yaakaar lu baax kon daal yëpp yow communication ba ci war a def amu ci ko voilà waxtaan ñu ci war a def amu ci te maanaam ay ay question yu bari la ci doomu aadama yi am te ñu bëgg mu leer. loolu rek mais mais newuñu la dafa baax wala dafa bon mais Ousmane Sonko tam est-ce que nekkul ci droit en tant que opposant day opposé wu donc doon na ñaan doon na doon na ñaan baatu askan wi amu ko mais il faut que mu opposé wu pour askan wi tamit yëngatu. est-ce que nekkul ne nekkul ne circonstances yooyu dong na ci la juddoo. xam nga bizarrement bu ma la waxee dara. Mhm. tey di nga ma ko nangul. Mhm. man. xamuma Ousmane Sonko ak lan mooy yéene mm. personnellement mm-hmm. xam naa ne gis naa ko toujours wax dëgg yàlla mm-hmm. bu askan bi jógee di say di di di di jooytu dara mm-hmm. mu ànd ak ñoom loolu ci li ma gis donc opposition opposition parce que du askan bi yëpp mooy casse toujours parce que am na ñoo xam ne ñoom gëm nañu ne li nekk Sénégal mooy du yoon donc ñooñu Euh, da nga leen koy may da leen koy jox ci respect. Mhm. mais Ousmane Sonko tamit comme ni nga ko waxee nii. Mhm. gis naa vraiment. Mhm. ak ni nga ko gisee. bu askan bi bu ñu waxee dara. loo xam ne moom doyu ko. au moins mu génn mu contesté. xam nga sànq wax nga nga ne Idi mooy. par exemple chef d'opposition. man ci sama laaj. man ci sama laaj boo ma laajoon tey man dinaa la ne presque man Ousmane Sonko rek laa xam muy opposition. parce que Idi dans dans dans ma vision man du opposant ci sama vision la man. sama xalaat bopp mais loolu mais loolu Ousmane Ousmane Tounkara loolu boo ko waxee loolu nit ñi nit ñi dañ la mere xam nga lu tax dinañ ma mere. Mhm. xam nga doomu aadama. Mhm. nee nañ la li la doomu aadama di mere yomb na. Mhm. xam nga tey man naa la wax sax yow ne la diw sa karaw bi ni nga ko peñee sax ma nga mere ma. mais nit booy wax da ngay wax li nga xam ne moom nga gis. tey bu fekkee doomu Sénégal yëpp ñu ngi jooy. waxuma sax affaire fer bi mais affaire Aliou Sall bi la ñu njëkk jóg ñun ñëpp ñuy jooy sénégalais yëpp di xataraay mhm. ñu pare ci Aliou Sall bi am yeneen maanaam aar li ñu bokk ak yeneen société civile yu bari daal yu génn mhm. doomu sénégalais yëpp daje ci mhm. néew ma idi dafa war a d'accord ak ñun déedéet nit ku ne war nga mën a ànd ak sa xalaat waaye yaakaar naa ne bu dul dara vraiment sénégalais yi on mérite nga génn vraiment nga wax ak ñun nga ne ñu diw ah man de ci sama xalaat bu gàtt. yaakaar naa ne Macky Sall ci li mu nekk mooy yoon mais mais mais bi affaire yi amee kee dem na ci journal RTS 20h expliqué lu tax ñoom ñu signé ak ñoom compte expliqué lu lu lu lu leer naa ñu mel ne Sénégal yi léegi lan lañ bëggati nag parce que information moom information rek la mën a doon ah. xam nga soit lii da lay intéressé wala lii bañ la intéressé. xam nga bàcc. Mhm. Euh, toujours comme ni ma koy defee ma bañ ko tëb mooy damay concentré wu. boo ma mhm. laajee question ma mhm. ma ma préciser pour tontu question boobu. mais sinon tey boo ma. newoon. question pétrole nu mu demee wala question lii nu mu demee. non loolu dañ ci ñëw mais dañ wax ci affaire suñu suñu suñu suñu ba pare. voilà donc man ni ma ko xalaatee ci affaire sa Seck comme ni ma la ko waxee muy sama xalaatu bopp. Mhm. vraiment bu fekkee yow da ngay opposé wu te nga nekk chef position comme yow ni ko xalaat ni nga ko wax mhm. xalaatee. Mhm. donc yaakaar moins bu sénégalais yi génnee di ñaxtu. ñuy opposé wu mu génn expliquer ñu ay firnde. mais man yi may dégg lu bari. ay nit yu koy génnal di wax mooy. Euh, moom amul jot saa bu amee jot dina génn wax ak sénégalais man mm-hmm. mënumaa comprendre naka ngay mën a bëggee Sénégal mm-hmm. te doo am jot pour ñoom bàcc man bëgguma Sénégal te loolu wax naa ko fii tey Sénégal ma leeral ko bëgguma dara ci Sénégal maanaam mm-hmm. wutuma dara ci Sénégal mais saa yu ma sénégalais yi soxlaa comme damaa bëgg Sénégal sama biir xol damay jóg ma wax ak ñoom xam nga lu tax parce que tout simplement ma woon leen ci sama biir xol ne man Sénégal lay dund xam nga man loolu la ñu wut ci idi tey bu fekkee yow da nga bëgg senegal mhm. nga bëgg jàmm Sénégal. Mhm. même sax nga dalal suñu xel. Mhm. parce que peut-être peut-être xeex bii tey ñuy wax nii. peut-être tey bu idi génnoon wax ñu loo xam ne. wute na ak ñun li ñu yaakaar peut-être xeex bi du am. am na solo am na solo am na solo am solo nga xam noonu euh, président de la république nag fan yee paas daa jëloon nag vacance ndax tam euh, jiitam réew daa metti ko jiite jiitam réew dafa metti te yow loolu da nga ci d'accord man xanaa nag président am na droit toog un mois noppalu ko parce que tamit coono yi Sénégal metti na am na plein droit waaw voilà donc bi mu ñëwee nag euh, nee na facture téléphone yi nga xamante ni xaalis bu bëree bëri daan dugg ci askanu Sénégal amul nag benn président bu ko dindi moom dindi na ko kon loolu dafay dafay wane ne moom ngi ci mi ngi mi ngi man nag yéen euh, vraiment bu ngeen toogee ne président bi daal ñu ñoom moom ci yéen yi. dañu dañu mi ngi liggéey ah. mi ngi <laughs> bi macha allah léegi gis nga ko. gis nga tali bi Fouta keroog bi inondation bi. amee gis nga ko non bi nga. non Ila Fouta waxuma Ila Touba de. <laughs> Ila Fouta de waaw Ila <laughs> gis nañ vraiment dem beeg dikk bi yomb na euh, dund gi yokkul président daal mi ngi liggéey. mais yéen waaw mais ñu fàtte euh, léegi ñu dem ci côté fuuta bi gis nga barki Dembo Ndiaye li xew ci inondation bi Touba euh, Fouta mooy tali bi nga xam ne chinois yi ñu ngi koy soog a delloo tali bi biñ ko paree ak léegi matagul sax at. Mhm. du gis nga li xew ci tali bi. Mhm. gisuloo ko. gis nañ ko tali bi dafa tagg mais mais mais loolu dañ ko liggéey. Ah. président dana ko liggéey. Ah, buñ ko mayee buñ ko mayee. waaw non dañ ko def tali xam nga comme nag ñu ne tali. Uh-huh. donc bu ñu waxee fi baax ci tali ñu wax aussi fi baaxul ci tali. Uh-huh. man yaakaar naa ne ta euh, euh, bàcc. Uh-huh. am na euh, lu président di def parce que nit tamit. booy dee. xam nga li neex ci àddina li neex ci jullit mooy yàlla dafa am lu ñu lu mu wax si ñun. jullit buy dund. di nga dee. du dëgg. la te ku dee yow rek la ak sa bàmmeel ak yàlla. mënuma toog fii tey ma la. président de la république defalul Sénégal dara. Hmm. loolu mënul nekk hmm. c'est pas possible. mais lan moo tax ñu fal ko du pour mu defal Sénégal dara. Hmm. mi ngi def dara. mais bàcc yaakaar naa ne am na ay jëfin yoo xam ne war na koo gën a mën a def mu gën a rafet. président de la république déjà mënta nekk chef de parti politique. président de la république. warta am parti warta nekk chef de parti politique. dafa war a dindi la nga yooyu delloo ko parteem moom mu def lan. mu nekk président wu sénégalais yi. de tous les sénégalais. Mhm. mu ñëw tëddee njaaxaanaay sénégalais bu génn di ñaxtu. Mhm. mu génn wax ak ñoom. Mhm. ne leen diw la ngeen di ñaxtu lan la ñu wax la. bu dee àndu ci sax mu ne leen ah defe naa buñ ko defee woon nii moo gën wala buñ ko defee woon nale moo gën. mais yaakaaruma ne c'est normal en tant que président de la république. nga nekk chef de partie de ngay defante ak ay opposition parce que moom waratul nekk ci waratul bokk ci loolu moom président wu sénégalais yëpp la war a nekk mooy war naa xam Ousmane Tounkara lan moo ko naqari bàcc lan moo ko neex kii lan moo ko naqari parce que en réalité ñun ñëpp ay sénégalais lañu. xam nga yow ni nga d'accord tey ñu ngi waxtaan yow d'accord nga. ne président de la république mi ngi liggéey. man booba ba léegi boo ma laajee ma xool fale xam nga donc man am naa loo xam ne j'ai des questions. te man toujours comme ni ma koy waxee. man sama diggante ak yàlla ak yonante bi li neex ci sama waxtaan bàcc. mooy man soxlawu ma dara man soxlawu ma liggéey. soxlawu ma place man yor naa société man am naa sama liggéeyu bopp yor naa sama ay kopparu bopp yor naa sama dundu bokk du ma dem dëkki Sénégal soxlawu ma nomination donc man su ma xeexee war nga maa laaj pourquoi am na solo xam nga am na ñoo xam ne bu ñu xeexee xam nga ne intérêt man xam naa Sénégal caay-caay bari na am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi yuuxu xaalis moo leen tax a am na ñu bari tey ñoo xam ne ñu ngi yuuxu gëmuñu li ñuy yuuxu lan la. Mhm. mais man li may yuuxu te ma gëm ko. Mhm. mooy dama bëgg mu leer dama bëgg sama jarbaat yi sama neveu yi amin ah, sama sama cousin yi. Mhm. sama frère yi. sama sœur yi sama yaay yi sama bajjan yi sama tante yi dama bëgg ñoom tamit ñu nekk ci même jàmm ji nga xam ne moom la de surtout sénégalais yi ne. am na solo ñoom it mën a faju seen doom yi mën a jàng école. ñu mën a naan ndox mu set. yooyu rek laa laaj. Mhm. laajuma kenn yónnee leen chèque seen kër. Mhm. parce que ku liggéeyul warul am chèque. am na solo kon loolu dafay dëggal ne yow. faroo ci benn parti. man faruma fenn. faruma ci benn parti ak ni nga ni nga fi défendre Sonko. sama diggante ak yàlla ak yonente bi Sonko laa voteel. Mhm. xam nga dañu wax. voté. waaw vote mais taxul nga ànd ak moom. non. àndoo tey bu élection amoon àndoo opposition àndoo àndoo déedéet ànduma opposition ni pouvoir. man je suis libre ma votel ku ma neex tey Macky Sall bu soppi woon demin xam nga dañu waxante ay réalité loolu man saytu naa ko ñeneen ak ñeneen ak ñeneen saytu nañ mhm. ku ku bëgg a wax dëgg laa wax. Mhm. Macky Sall ñun mënaluñ ko dara. Macky Sall ñun ñoo ko jox immunité. Macky Sall lu mu def ci Sénégal bu taaloon dëkk bi sax mënuñu koo yóbbu jeel. Mhm. Sénégalais ñooy wax lu leen neex rek. Macky Sall kenn mënu koo jàpp. Macky Sall bu taaloon Sénégal haute trahison sauf haute trahison Sénégal Sénégal président boo ko joxee tey maanaam euh, li nga xam ne moom mooy immunité présidentielle euh, maanaam may nga ko sax droit mu jël ay fetalam dem attaquer réew may nga ko droit mu jël ay avion réew mi dem attaquer beneen réew mais sauf haute trahison mooy lan mooy mu nax population mooy def loo xam ne méngoowul ak loi donc tey pour gàttal mooy li ma la expliquer sànq rek man personnellement bu Macky Sall changé woon tey jëfin lépp comme ni ma ko xalaatee lépp jaar yoon société essence ay nit ñu xam essence ñëw teg ko contrat ay Frank Timis ay middleman yooyu yëpp ñu dindi leen. Mhm. we don't need a middleman. Mhm. Euh, ok euh, am na solo li nga xam ne lu am am solo la mais sànq yaa ngi koy cox sànq muy pétrole beeg gaz bi. waaw euh, ki nga xamante moom Aliou Sall moom dem na jël alxuraan waat. ne set na wécc bu ko kenn tuumale ci lu mel loolu sax daanaka Sénégal fan yi sax coow li ñu ci wax sax bëriwul yow sànq ba tey nag dafa mel ne yaa ngi doon xaar opportunité pour wax ci mais loolu affaire ba jàll na ak gaz moom amul. jàllul de. waaw xam nga looñ ci mën a wax yow xam nga bàcc. Mhm. looloo neex ci waxtaan. Mhm. xam nga booy waxtaan ak ay nit. Mhm. yu xamul dara. man nga ñëw nga ne leen eh diw sàcc na cent milliards. mais booy waxtaan ak ay borom xel. boo ne eh diw sàcc na cent milliards xam nga lu ñu lay njëkk laaj. Mhm. lan mooy preuve bi. Mhm. mais ñun on a des contrats xanaa xamuloo ñun dañu yor ay contrats yoo xam ne Aliou Sall moo leen signé. yow contrat da nga ko am yow. sama diggante ak yàlla ñun am nañu contrat yi am nañu décret bi sax. mais ko war am ñun ne en exclusivité sociale. non dina leen ko jox dama la koy yónnee mhm. contrat yi am nañu décret bi. contrat boo xam ne Aliou Sall moom moo. signé non Sall mënul signé contrat. président de la république moo signé contrat ak décret. Ah Aliou Sall mënta signé contrat. Mhm. Aliou Sall li mu mën a def mooy ñëw ci magam ne ko signé la. Mhm. loolu rek la mën a def. Mhm. wala ñu waxante ci suuf. nit ñëw ci magam mu signeel ko Aliou Sall mais kon yëf yi kon du Aliou Sall ah, parce que moom moom Sall moom taxaw na ci télé bi waat ne yëf du moom et puis dañ ñu bàyyi ko ah xalaatu bopp sama xalaatu bopp yëf yi du yëf yi président de la république xam nga patron. Mhm. société. Mhm. dafa am bopp. Mhm. man sama société tey. bu amee problème. kiñ ci war a njëkk jàpp man la. mënuloo dem jàpp balekatu société bi nga ne ko yaay problème société bi. Aliou Sall du Aliou Sall dara la ci. mais Aliou Sall. yoon la rek waaw actionnaire la. sëñ bi ku waxul dëgg wax fen Macky sàll bu waree jox nit njariñ. lan la nga defee ne nit lay dem xooli ci àll ba fa la jox ko ko wala rakam la koy jox. mais quand même nañu waxante dëgg man tey man peut-être bu ma nekkoon président de la république du ma ko defee noonu de. man parce que président de la république comme ni ma la ko waxee warul am parti politique. warul am par parloo président de la république moom dafa war a tëddee njaaxaanaay moom mooy ki nga xam ne moom mooy pàppu sénégalais yëpp. moom mooy yor responsabilité sénégalais yëpp. Mhm. kooku mooy président de la république mais dans le cas Aliou Sall man blâmé wu ma Aliou man Macky Sall laa mm-hmm. parce que Macky Sall xam na pétrole. Mm-hmm. Macky Sall géologue la. he he mm-hmm. knows about pétrole and gas. donc kenn mënu koo signé loolu loo xam ne xamu ko. donc loolu mooy première erreur. quant à Aliou Sall moom ndax am na ci ay intérêt bien sûr. dañu am transfert bancaire yi am nañ ko. man daal maa ngi xaar inf parce que yow information bu bees tàq nga may jox donc loolu. Euh, dama la koy yónnee ñun ñun en Sénégal danañ ko am et puis ñu publier ko en tant que euh, euh, presse. donc ba léegi ci waxtaan wi ah ci actualité la ñuy des fàttali leen ba léegi ne nga ak ñun ci seen émission Bathie Show tey ñu daal Ousmane Tounkara activiste nekk New York Ousmane. Euh, wàllu rëbës la ñuy dugg ndax rëbës gis nañ ne coow li léegi temps yi bëri na mercredi ba passé ñaari nit. Euh, am na ñu fa faatu mais euh, li ñu ci xaw a jaaxal rek mooy am na ñu faatu mais amul ay blessures. selon ci information yi ma jot. <laughs> donc xaw nañu jaaxal tuuti mais problème mu rëbës nag dafa nekk problème bu yàgg boo xam ni nit ñi yàgg nañ koo coow ña fa nekk yow ci sa xalaat lan nga foog ne tey loolu moo ko war a mën a saafara ndax daal doy na waar. yaakaar naa ne déjà euh, comme ni ma la ko waxaatee réew. Mhm. dafa am entité yu bari yu différent yu wute. Mhm. tey boo xoolee bu dee problème mu Sénégal rëbës la déjà. Mhm. man li ma xalaat ci sama xalaat bu gàtt da ngay xool li nga xam ne moom moo nekk ci kaw. ki nga xam ne moom mooy gérer loolu lépp. te defe naa Macky Sall changé na loolu bu yàggul changé na ministre de la justice. defe naa changé na lool. Mhm. donc tey ci sama xalaat ministre de la justice au moins ci sama xalaat bu gàtt. Mhm. parce que li ma jàngat ak li may dégg ci rëbës bis bu ne. Mhm. mooy ay doomu aadama yu bari ñoo fa nekk. yoo xam ne ils sont innocents. mais loolu. de ñoom am nañu ci innocent xëy na. waaw am na ñoo xamante ne tamit yoon dafa seen waaw waaw waaw mais comme ni ma koy waxee. mooy déjà li war a njëkk leer bàcc. mooy mënuloo jël ay reykatu nit mënuloo jël ay nit yoo xam ne dañuy rey téeméeri nit nga dugal leen ci kaso ak koo xam ne da nga ko ramasse dem ba ci guddi. loolu. Ah, parce que Amérique. Hmm. dañu séparer lépp Amérique am nañu par exemple benn pilotage boo xam ne fa la ñuy jaarale doomu aadama yi. Hmm. mais bu ñu indee criminel bu violent. dañ hmm. koy dañ koy séquestrer. dugal ko foo xam ne vraiment du moom ak jaaykatu mango bi du ñu bokk nekk. imagine nga tey nit. ku xam ne moom dootul génn dundu bakkanam mhm. nga jël xale bu ndaw innocent nga sànni ko foo boo xam ne kooku mi ngi dem këram suba mhm. mais fiiraange googu rek war na tax doomu aadama def keneen ñaawteef mhm. loolu Amérique fii sax daf fii am am na nit ñoo xam ne tey ci kaso Amérique yi ñu leen ne comme suba ngay ñibbi duñ ko publier duñ ko publicité parce que dañuy ragal ñi nekk ci biir ñoo xam ne ñi ñibbeeguñu ñu fiir ñu dugal leen ci gilaawaali boo xam ne duñ fa génn. Mhm. donc defe naa déjà problème mu rëbës. lan mooy solution wu rëbës. solution mooy ñu tabax déjà kaso bu moderne benn mhm. benn man ci sama xalaat. Mhm. benn parce que en fait kaso Amérique du pinukaay doomu aadama. du du du du toroxalukaay xam nga lu luñ ko tuddee fii. detention fii dafa am ñaari affaire détention dafa am detention am loo xam ne tey aussi. Euh, comme niñ koy waxee pénitentiary mhm. mais fii li ñuy def mooy pour ñoom kaso réhabilité waat doomu aadama lay def mhm. tabaxaat nit ki tabaxaat nit ki mhm. jàngal la liggéey jàngal la jub jàngal la def lu baax jàngal la métier kaso loolu lay njariñ mais kaso du pour punir pour pour torxal mais dama yaakaar ne rëbës tey doon na toroxalukaay. Mhm. te war nañ koo gën a mën a moderniser. Mhm. maanaam atte ñi nga xam ne. ils ne sont pas coupables bàyyi leen ñu génn mhm. longue détention am na ay nit ñuy def fukki at ci kaso bi. ñu leen doog a atte ba pare te tëj na. dem leen waaw te dëgg wax naa. problème yi daal bëri na. donc yaakaar naa ne. yooyu yëpp moom vraiment ci ci at yi di ñëw. bu fekkee euh, euh, président bi nga xam ne. moo moom moo fa nekk incha allahu moom la fa yàlla teg ba juróomi at yi di ñëw defe naa war naa mën a changer ay jëfin war naa mën a changer ay mbir yu bari mm-hmm. ci temps bu gàtt nag parce que loolu c'est pas compliqué ah. parce que euh, pour pour pour ci affaire euh, rëbës yi ñu bari sax nee nañ parce que dafa am fu ma bëgg a dugg moo tax ma ma bëgg ko jaarale foofu. Mm-hmm, mm-hmm. ñu bëri nee nañu paquetage bi am bi rëbës mooy tax ñu bëri sax am na ci ñoo xamante ci ñoo ñàkk si bëgg certes mais am na ci ñoo xamante dañ fay génne. ak ak mbirum ngóor jigéen. Mm-hmm. Euh, gis nañ ñu bare bari ñoo xamante ni wax nañ ko parce que tam da ngay dem ba yàgg benn néeg boo xamante ni patron bi mooy moo lay jël et puis di boobu sax li léegi commencé intégré intégré Sénégal gis nga waa LGBT léegi am nañ représentant foofu euh, léegi daal Sénégal daal ñun daal comprendre ñu dafa mel ni Sénégal léegi Amérique la. su euh, fekkente ni mën naa ko wax ngeen baal ma. <laughs> waaw ce ce qui est anormal. Mhm. mooy toujours ñu ngi koy wax doomu aadama yi. Mhm. gis nga jën. mënul mm. dund ci goudron nii. Mhm. jënd jën géej lañ ko xamee. Mhm. donc Sénégal ñun dafa am culture yoo xam ne moom la ñu gëm moom la suñu maam yi suñuy réalité c'est vrai. ak suñu réalité. Mhm. donc bu ñu bëggee dund réalité Amérique. Mhm. dañuy soox. donc man ci sama xalaat bu gàtt war nañoo mën a xoolaat suñu bopp delloo siwaat suñu ay xel. parce que déjà loi bi daf ko war a tere. loi warul may nit. warul ñu may ay droit yoo xam ne déjà méngoowul ak suñu société mhm. parce que loolu mooy indi ñaawteef bi en réalité mhm. parce que tey boo gisee ñuy dóor ay LG ay ay ay góor jigéen wala mbirum góor jigéen yi mhm. te ni nga ko waxee kaso bi moo koy produire lu bari parce que kaso bi ni mu koy produire tey par exemple benn kaso bu war a yor euh, six cent personnes nga def ci trois mille personnes paquetage bi mujj gi dañuy dem ba niñ leen di tëralee ñoom ci seen bopp da ngay gis ne dañuy encourager mbir yu mel noonu. Mhm. comme mbir mi dañu dem ba def ko caaxaan ci biir kaso yi. benn góor bopp bi jaar ni beneen góor bopp bi jaar na la ñu séddale seen i ay tànk kii dugal fii tànkam kele dugal fale tànkam. Mhm. seen i ay ay place privée di di di di di di di di mbëkkante mhm. donc yooyu. dafa xaw a doy waar xaw doy waar ci société. c'est c'est c'est même c'est même incroyable à un moment donné. mais yaakaar naa ne image yu mel noonu bu ñu ko wanee rek. du ma ne président de la république mm. mais ministre de la justice war na naa jël ay matuwaayam ba le lendemain sax loolu du fa am waxatuma laak encore la sur surlendemain ba yeneen weer di ci tegu mm-hmm. parce que tey am nañu ay place yu bari yoo xam ne Sénégal automatique ci immédiat bi mm-hmm. mën nañ koo mën a jël soppi ko mm-hmm. ay ay ay ay au moins détention temporaire parce que Sénégal bari nañu suuf. Mhm. bari nañu ay man-man bari nañu par exemple ay mbir yoo xam ne mën nañ ko war a mën nañ koo war a mën a utiliser. Mhm. def ko ni mu waree. mais tey ni ma gisee mbir mi di demee. Mhm. ah vraiment yaakaar naa ne. doy na waar ah. na waar de. mais tey euh, fii kaso yi fii gis nañu benn néeg ñaari nit koy bokk. moderne wala kii tëdd ci kaw. est-ce que en 2019 tamit normalement. du ndamu kaay de moderne mais man dem naa ci. parce que fii moom wax dëgg yàlla mën nañ la sax jàpp ci ay. jafe-jafe yu ndaw. mais teewut yoon dafa strict. voilà mhm. Mhm. mais am solo. Mhm. kaso Amérique da ngay defe ne nit ñaa ngi ne hôtel du hôtel de. ñoom doxuñu ci yooyu. mais au moins dinañu respecter nit. Amérique mais gis nga ko fii xaj sax dafa am droit. fii xaj dafa am droit. parce que loolu dafa normal ah. mhm. parce que bàyyi ma lépp lépp lu yàlla def ruur rek dafa war a am respect. Mhm. moo tax yàlla dem ba ci rendim bàyyi ma sax mun ne ñawal leen seen paaka ba mu ñaw. Mhm. ngeen tëral ko jublu penk. tudd bismillahi rahmaani rahim. ngeen rendi ko ci rendi bu gën a sedd. pour lan pour bu mu souffrir. mais doomu aadama ñu koo bàyyi muy souffrir. doomu aadama la yàlla gën a teral ci li mu sàkk. ñoo jël ay doomu aadama. di leen surchargé di leen paqueté di leen paqueté ci ay kaso di leen bàyyi ñuy ñuy ñuy feebar am na ci ñoo xam ne dañ fay génnee sax di am ay feebaru xel. Mhm. parce que dañuy dañuy am problème. Mhm. xam nga. Mhm. li ñu defee ci ay minutes bëriwut. mais yow dundun nga victime d' enregistrement ci bi ñuy bëgg a dugg ci euh, élection yi. te muy dëgg. ñu bëri nag ah daal ne Ousmane Tounkara way Macky Sall sax jënd na ko lañuy wax en tout cas mu jur coow. Mm-hmm. Euh, tey mën nga mën nga ñu expliquer enregistrement boobu. lu ko waral kan nga doon waxal. ah ba ba tax mu coow. parfait mm-hmm. voilà enregistrement boobu. Mm-hmm. soxna su tudd Koura Macky laa ko amal. Koura ah, Macky. kura Koura la tudd. Koura Ndiaye mi ngi dëgg la Las Vegas. xam nga man li ma lay ne injustice lay xeex. Mm. Koura Ndiaye boobu pour bi ñuy njëkk wax pour gàttal wax bi ñuy njëkk wax pour la première fois. Mhm. dafa am vidéo bu doon circuler ci réseau sociaux yi. Mhm. benn nit bu ko jàpp wax yu ñaaw. Mhm. ci ay waa këram ak famille am ak yooyu. mu woo ma comme gis na ne maa ngi xeexal ñëpp mu woo ma. saraxu ne ma waaw gis nga li ñuy wax sama yaay ma woo borom. ma ne il faut yi arrêté. ñoo def yu mel nii suñu diggante. parce que en réalité ñun ñoo bokk ndey bokk baay. bi ma wa defee ñaari fan yu ne nag mu woo ma bu wootee kaas waaw makki Sall mi ngeen di saaga waaw Macky Sall mi ngeen di def lii benn jour copte xam nga ak technologie mhm. maa ngi dawal maa ngi ci pale Palisades Parkway ndax fi ma dëkk mhm. maa ngi ci Palisades Parkway Koura Macky woo ma onze heures de la nuit te enregistrement baa ngi fii tey dinaa la may exclusivité boobu tamit ah, loolu moom man maa ko enregistré mhm. man li yàlla def Kouramaki daal ñu ngi wax di wax di wax bi ñuy wax ma jël mbir mi ma enregistré. man de man Ousmane Tounkara. waaw bi ma ko enregistré. ma pare ma yónnee ko audio xam naa nag du ñàkk peut-être comme ay xalaat dañuy daje. moom mën na am enregistré na ma. man ma enregistré ko. que yéen ñaar da ngeen di enregistré. voilà mais man bi ma ko enregistré. en tant que activiste. dama ko bëggoon. won caay-caay bi nga xam ne moom la Coura Macky di doxee ci affaire Macky Sall léegi ma koy xam nga li américain di ne. may ma koy gasal pax. génneel ma moom am naa c'est important ah parce que euh, victime d'enregistrement la affaire bi jur na coow wax ji bëri na donc euh, comme comme moom nag ndey mbi ligaa ngi nii te il est temps euh, tey mu profité ci antenne bi expliquer affaire yooyu naka la demee parce que tam Sénégal doy na waar te itam am na nit ñoo xamante ni sama genre gi borom benn nopp lañ donc information bu nga xamante dafa dafa dafay strict. dafay dafay dafay am solo. parce que audio file la gis nga mhm. lii mhm. lii ay audio la mhm. gis nga lii nii mooy tey boo bëggee enregistré dara xaw ma ndax xamoon nga date bi. xamoon mais mais ce qui est moom mooy que ne. avant dina fi nekk dina fi la wan. yëpp a ngi fi gis nga lii. en attendant euh, nga koy nga nga koy seet. donc ñu lay gërëm vraiment sincèrement kontaan nañ bu baax a baax ci euh, ni ngi ñu euh, vraiment yombalalee mbir yi te xam naa ci leen xam naa yéen nag jafe jafe jot a tax maanaam pour woo leen rek jot leen yombul de. wel yombul faaw ñu envoyé message quoi bu jot leen <laughs> parce que man pour jot ko dama ko woo ba soo jotuma mu yónnee ko message. <laughs> da ko man la bàyyi ci Sénégal mu doog ma mu doog ma mu doog ma vraiment teg mais gërëm la euh, ci ni nga ñu yombalee émission bi di la bàyyi nga tàggoo ko nit ñi en attendant nga ñuy waral. voilà loolu ci euh, téléphone. Mhm. gars yi euh, comme ni ko suñu frère bi waxee. Mhm. ñu ngi leen di remercier waat. ci li nga xam ne ñun ñoo ko defandoo tey fii ci Sénégal. Euh, di remercier Bàcc. Euh, vraiment ci liggéeyam bu rafet. Bàcc nag ma man leen ko wax ndax man New York la mhm. te bu ma leen nee New York la Bàcc bi ma koy xam. Mhm. yàgg na de. dëgg la mais euh, gis ngeen tey baaluma dara. Mhm. mooy free and fair. mooy jël na chicote bi nga xam ne moom lay dóoree ñëpp. mu ñëw dóoree ma ko laaj ma question yi nga xam ne moom moo nekk ci ñoom. te lii ñu fi wax. dara amu amu ci pré-arrangement. te benn question comme ni ma la ni ma leen ko waxee amul sens interdit. ndax dañ ko waxante balaa ñu fi ñëw. Mhm. man na maa laaj lu ko neex. nim ko neexee ñu tontu ko ko. donc euh, loolu laa fi gis. Mhm. te euh, ñu dellu siwaat rek bàcc comme toujours. Mhm. remercier la bu baax a baax a baax ci liggéey bu rafet bi nga xam ne moom ngay defal Sénégal. Mhm. te ñuy ñaan yàlla yàlla continuer laa may katton bi. amiin pour vraiment euh, liggéey bi jëm kanam. mais boo ma ko permettre le temps ngay tëj. dinaa gis lii am naa ko. c'est que dama bari. amul problème man yónnee ñu ko après ñun dinañ ko insérer ci biir émission bi. vraiment di di leen gërëm aussi di gërëm baax Mansour Mansour depuis. Euh, Gambie ñu ngi koy nuyu bu baax a baax gis nañ conseil yi euh, gërëm baax Bira gërëm toute l' équipe bi nga xamante ñoo nekk foofu au Sénégal def liggéey bu amam solo c' était donc Bathie Show euh, vraiment tey moom ça vraiment <laughs> chaud avec sama xarit Ousmane Tounkara di leen gërëm bu baax a baax di leen sant di leen jox rendez-vous beneen yoon ak beneen invité incha allah.